président conseil sax ma gën a directeur général. waaye bëggoon naa directeur général. waaye bëggoon naa directeur général. directeur général bee tey. ndax directeur général bee tey. waaw mu jëm mu embauché trois cent personnes ci bokkam. Ah, mu jëm mu jël ñetti téeméer ci Matar Cissé ba fa jógee. Matar Cissé ba fa jógee. ñetti at la fa def. ñetti at la fa def. embauché fa 1300 personnes. engrais dafa junni ak ñett téeméeri nit. tey bii su ngeen fekkoon defoon ngeen la nga war a may nekk directeur général Sénélec. tey bii su fekkoon élection yooyu jël naa ñu jox ma directeur général Sénélec. chaque année ma jël 200 xale yi mu ba dugal leen. chaque année dinaa jël ñaari téeméeri xale dugal leen. soo jëlee salaire mooy muy 500 000 francs CFA par mois. bu ku ci ko nekk amee salaire moyen muy cinq cent mille francs par mois. cent milliards di dugg par Ndimbo par weer. cent millions di dugg par. cent millions di dugg par weer. muy jëriñ waa Ndimbo muy jëriñ waa Ndimbo.